barhaamu baa un waraa un ci njëkk rek. wala tumsikuuna bu leen leen téye edd ji des ñetti fan nga fay li mu dikk nga faseeti leen téye mukk daraar ngir lor leen li tax te doo ñu yeddaw rek yeddu ji du jeex buy bëgg a jeex rek nga fay lii rek waccaat muy yeddaw wala tam si koone daraar li tax te du buur nag li tëkku nag ni aha buñ ne passé ci seen loxo la nekk it nag du lu leen neex ngeen def ko wa man yafaal ku defatina zalika loolu ci yéen ëllëgee lu ma ko def na xam ne faqad dalama moo tooñoon naf sa boppam benn waay ñëw ne Omar ibnul Xataab fase naa sama jabar téeméeri pase Omar ne ko ah comme Omar léegi mere na nit ñi nee na ko fasete lépp benn danaa ko wéyal Omar ne sa jabar xaraam na sa digg ak moom ca ñett yu jëkk yi gis nga juróom-ñeenti pase yi ci des ak juróom-ñaar da ko foontoo yàlla loolu la yàlla wax ne wala taxidu bu leen jàpp ayaati laahi alquran yàlla ji huzuan mu di lu ñu yëjji ndax mu ne yem leen ci ñett wa nga ngeen def lu ko ëpp dafa mel ni yàlla ngeen di yejji kon waskuro jàng leen fàttaliku leen ni'matalaay xewli yàlla aleykum ci yéen wa ma anzala ak la wàccee na ko ci yéen min alkitaab yi ci téere wal xikmati xam-xam buy jëriñ yaidukum yàlla lañ di waar bii ci loolu wattaqullaha ragal leen yàlla waala moo ngeen xam ne ana laa yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in lépp lëf léegi nag fa ida talaqtum dem fase ngeen nisaa jigéen ñi ñuy eddawu bee fa balax na jot ajal woon seen digab jeex ak edd fala taaduluhunna bu len leen gàllankoor an yeen ki xane ñuy séyeeg azwaajuhunna seen i jëkkër yi leen fase woon ida taraadaw bu ñu gërëmantee baynahum seen diggante bil maarufi ci njëkk kooku nag kilifa yi la bàyyi jéeg najaay jéeg càmmiñ li ko doon maye fase woon na ko jëkkëram ñëwaat na ne bëgg na ko nga ne déedéet ñàkkee tegan gi nga ko ñàkk tegan dootuma la ko delloo yàlla ne déet yéen itam fala taaduluhu na bu leen leen gàllankoor ñu seyaat ak seen jëkkër ndem gërëmante nañ ci njëkk zalika loolu yuwazu def na ko waaree bii ci loolu man kaana ku nekk na min kum ci yéen yuminu di gëm billaahi wal yawmil axir ñu ngi koy waar na wattu loolu zalikum ndax delloo googu day wattul de azka moo gën a sela lakum ñeel leen de waat xaru moo gën a laabit de ndax it boo ko delloowut mën naa am fekk nga bañ koo delloo muy dajeeg waa ji ci ay yoon yu jubut te kon yaa ko def ndax wallaahu yàlla mii wax lii de yàlla mu xam na de wa antum yéen nag la taal mën a xamu leen mu ñëw ci attey nampaale jigéen a ngi jur na doom ki ñu doon jàngal dafa ñu doon wax ne xalil dafa juum xalil ak dafa wax ne risaal sax wax na ko ne jigéen ju am daraja du nampal doomam mu waxoon ñu ne dafa jum rek ndax jigéen bu amee daraja doom it day am daraja kon war na koo nampal kon nag jigéen bu amee doom na ko nampal ñaari at yu mat sëkk loolu mooy dayob nampale ba maanaa namat loola bu ko matee nag bu ko feralee loratul kenn loolu la bëgg wax léegi nag bu fekkee ne jigéen ji am doom ji jëkkëram daf ko fase te bàyyee ko doom ja mu di ko nampal dundam ndey ja ak doom ja te mooy dundam ndey ja ak ko daayal ndey ja loola baay ja la war nag bu fere itam nag di ko fere fere itam nag yar ba ak kafaala ba dundam ndey ja ak doom ja yépp bàyyi ja la war ndax kee ko yoreel doomam léegi nag bu fekkee dañoo juboo ci fase mi am na man mënuma loolu xocc naa sama doom ñu juboo ca ah dara nekku ca na yóbbu doomam mu nam na mu nàmpalloo keneen su fekkee ne tam ndey dafay nàmpal doom waruñu ko lor nag fase ko ba pare sànni ndoom sa bàyyee ko ko muy dar dareek moom ngay dem saw yoon loolu nag bu ko def bàyyi ji tam kenn waru koo xiit xiital ne comme fase nga ko ma ngi nàmpal weer wu nekk rek fukki junne ngay joxe te fekk mënu ko loolu itam bu ko def moo tax buur ne wal waalidaatu yaay ya yurdina danañu nampal awlaadahuna seeni doom xawlayni ñaari at mu ne kaami lay kaamilayni gis nga yàlla li mu rëdd boo koy teggi rek bi mu ne xawlayni kaamilayni bu neen xawlayni yem ca sax mu woyof waaye mu naatal ca kaamilayni waxtu woo nampalu doom ji ñaari at yu mat dana am lu manqué ca moom benn xisaaw bi ak takkunil jismi bi manqué boo ko dabo daboo yaa ngi koy dabu ci ay tërkibaatil kiimawiyee yeneen yu ko indil ay feebar ay matière chimique yeneen ngay dabu ci feneen te garab bu nekk buy faj am na lu muy bàyyi ci waaye boo defoon xawlay ni kaamilay ni gii te it dana tax ndey ji du ëmb te bu fekkee ne par ñaari at lay nampal door a ëmbaat nga konte ñaari at yi mu nampal ak at mi mu ëmb muy ñetti at doom doom ji door a am rakk gune yi dinañu dëgër nef du ci am te ko dootuñu aajo sax organisation de naissance bi ñuy doon def bu ñu respecté woon li yàlla wax muy xawlay ni kaamilay loola nag li man araada ku bëgg rek an yitti ma muy matal ridaat nampaale ga ko ku bëgg bëgg la matal nag booy ba nga def juróomi weer wala at genn wàlla wala lu la neex waaye boobu nag loo ci góobee gar waalal mawluudi lahu war na bàyyi ja ndax moom lañ jural doom ci mooy mawluudu lahu war na ko moom bàyyi bu ñu koy nampalal rizquhunna lépp ku doom jàng ndey ja wa kiswatun ak seen koddaay bil maaruf ci ni mu ko mënee duñ charte leen ñu ne waaw lu tax mu ne laa tukallaf defu togg kat nafsun bakkan moom itam illaa wusaha lu may lim man di wala tudaarru defut lor wala tudaarra defut lor yaay bi wala dihaa ngir doomam fase ko bàyyee ko doom ja muy lor moom loolu itam daganut wala mawludun lahu bu lor bàyyi ji bi wala di ci doom ji muy nampal nga di ko sas lu muy indi waalal waarisi war na kay doon na bàyyi ndem dee na mislu zalika la waroon bàyyi ci pay ak nampaali ga fa araada bu ñu bëggee moom jigéen ak jëkkëram bu ñu e, bëggee fi saalan feral gune ga antaraadin ci gërëmante minuma ci ñoom ñaar wata shaawurin ak ak diisoo te fekk sa ñaari at yëmatut ñoo xam falaa junaa déet bakkaar alayhima di war leen ci loolu wa in aratum bu ngeen bëggoon nag an tastardiu ngeen sakkoo nampallu awlaadakum seen i doom ci yeneen jigéen yu leen jurut xocc sa doom loo ko keneen ah bu la neexee falaa junaadit bakkaar aleykum di war leen ci loolu waaye ñooña nag bu ñuy jaambur ida salamtum eh, bu fekkee ne jébbal ngeen ñooña ma aatitum li ngeen leen jox ci yool bil maarufi ci njëkk wattaqullaa ragal leen yàlla ko ndax gu ne ko yore dafa am ab coono waalamu xam leen ne anna laa nag yàlla basirun aji xam la bi ma taamaluun ca dangeen da ngeen def ko mu ñëw ci ay day jigéen ju jëkkëram dafa faatu buur ne wallazina góor ñi nga xam ne yuta wa na def na leen faat minkum ci yéen julit ñi wayadaruuna te ñu bàyyi ca kër ga azwaajan ay jabar yatarabbas na jabar ya nañ muñandiku bi anfusihim seen bopp duñ tëddateeg kenn duñ joteeg kenn arbaata ashurin ñeenti weer wa achara nag fukki fan fa isa balax na buñ jotee nag ajalu na seen dig bii ma wax fala junaa dit bakkaarati aleykum war leen yéen góor ñi fi ma na ci lépp lu ñu def ñoom jigéen ña ci xeeti toilette fi anfusihim seen bopp bil maaruf ci njëkk ba ngeen mën leen a xemam loola bakkaar nekkatu ca wallahu yàlla moom xabirun aji dañ kumpala bi maa taamaloon li ngeen def yi ngeen di def ñoo ñuy eddaw di leen romb di joxe saabub ñaari junne ak ñetti junne loolu yàlla xam na ko wallahu xabirun bima taamaluun mu ñëw ci kooku nag nga xam ne dafay tenji tey wala day eddaw ah bés ba fa rombo rek am loo ko sànni di doxal sa ngoro te moom jeexalagut ci loola alquran ne loolu bu leen ko def man nga kaa gaaral nag ay wax te loolu benn yoon lay doon nga ne ko ku amoon sab kem day jël te doo ko waxaat te doo fa dikkaat mu ne walaa junaaha det bakkaar aleykum war leen nag fi ma arattum lu ngeen gaaral bii ci xeetu labat min xitbati nisaa yi ci labat jigéen ñi aw aknantum wala ngeen nëbb ko sax waxu leen ko gaarul leen ko ngeen nëbb ko rek fi anfusikum seen bopp ni kii day bu kiyee bëgg naa koo kii loolu lu mel noonu rek mune ne li ko waral moy alimallahu xam na yàlla mosni ni annakum yéen sa taskurunahunna da ngeen len tudd walakin waye la tuwaidun way nga la bu len len deul sirran ci sekere nan bo kiyee dina la kefe bu len ko wax illa an taqulu lumay ngeen wax qawlan wax ma'rufan ju ñu xam wala ta'zim waaye bu len dogu mukk nak uqdata nikah ñëw rek dogu ci ne bo summe ma takala li bu len ko def na ngeen tok hatta yabluga ba jot alkitaabu téere ba ajalawab digam mu jeex wax la moo xam leen ne ànd yàlla de yàlla mu xam na de xam na maa fi anfusikum li nekk seen bakkan yi kon nag fahzuruhu na ngeen ko wattandiku wax la moo xam leen ne ànd laa yàlla xafur na aji bale la mu rax halimun aji lewet la waaye du tere xam na lii de mu ngi ci àdd ba tey jigéen a ngi nii dañ ko may jëkkër te dul ak jëkkër ji jëkkër ji fase na ko kooku amu fa waaye bokkul ak jëkkër ja dee na may nañ ko tëdduñu jëkkër ja dee na edd dana am xalil daf ne almawtu kaddu xóoli almawtu kaddu xóol waaye bu fekkee nag ne takk rek moo am te tëdd amul bu fase amee edd du am ak canit du am ki ñu doon jàngal daana wax ne mu muñ laalut ak genn wàlli can doy na ko moo tax yàlla ne laa junaax adit bakkaar aleykum di war leen intalaqtum dem fase ngeen ni nisaa jigéen maalam tamussuhunna feeg laalu leen leen aw tafrido wala ngeen dogal lahunna ñee leen faridatan can bakkaar du leen ci war wa mattiuhunna na ngeen leen yobbal alal muusi war na kii yaatu a wërsëg qadrahu kem yaatum nga na ko na ko yobbalee ndaw sa wa alal muqtiri war na ku néewle ki mu mu yobbal qadruhu kem néewalam ga rek mataa ndax yobbal bi xéewal la rek bil maaruf ci njëkk xaqan dëgg la nag alal muxsinin ne waral ñi nga xam ne dañoo bëgg a rafetal seen ak jaamu yàlla wa in talaqtumuhunna dem fase ngeen jigéen ñi nag min qabli an tamussuhunna fekk jotewu leen ak ñoom leen na waqad faradtum te xam nañ ne dogaloon ngeen lahunna ñeel leen ci jitaayab takk ba faridatan can kon fa nisfu ma faradtum ngeen leen jox genn wàll can ngañ dogaloon loola nag illaan na lu may jigéen ñi ne déet man kay boo ma wàccee man baal naa la loolu aw yaafuwa wala jéggale allazi kilifa sëy gi nga xam ne bi yeddi yii nekkoon na ci loxoom uqdatu nikaay pas-pasab sëy ba mooy bàyyi ja ne déet moom kay comme baa nge ma sama doom ma it baal naa la loolu yàlla ngi ne loolu nag moo gën comme danga nga ko may sa doom jotewuñ dara mu wacce ko waaye baa ko gënal la can gi wa an bu ngeen jéggale woon genn wàll googu aqrabu moo gën a jegeli taqwaa ci ragal yàlla ne doylu ngeen te nit ñi duñ yem nag bu la defee la njekk di gu toll ni wacc sa doom yëmu leen war nga koo gën nga defal ko njekk gu toll ni wacce ko genn wàll can nga moo tax alquran wala tan sow bu leen fàtte alfadla ngëneel baynakum seen diggante nit ñi duñ yem ndax inna laa yàlla moom basirun ku xam la bi ma taamaluun ci la da ngeen na loolu mu ngi ñëw julli niñ ko wara watto niñ wara watto julli ak di wax itam ci salatul wusta salatul wusta ne nañ mooy julli gi gën ñi ne déeréet am ñu ne moy julli suba qayrawani ne wa madina loolu ñuy wax ñeneen ñu bari ci mu fastura ne ñu moy julli takusan ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam ci xareb xàndax yéefar yi dañ ko lëjaloon ba jant bu so mu ne yann yàlla rëbb daal di ne man dey julleeguma Omar eh, Omar ibnul Xataab ne yal na yàlla rëbb yéefar yi tere nañ ñu ba julliwun julli gi gën yonent bi ne may dey julleeguma dal di jël ndox dugg ci xur wi génn jàpp ne bilaal noddal mu nodd ñu fay tàkkusaan noddaat ñu door a julli timis loolu moo tax waa Medina ne Eh, ñëw eh, ulama lu xadis ne kon takkusaan mooy salaatul wusta ndax moom la ñu soxlaa loon yonent bi ba Omar ne ko ñun dey shughil na ani salaatul wusta ñooñu loolay seenu lay waa Madina nag ñoom dañuy wax ne ndem tisbaar ak takkusaan ñoo bokk daruur yi ba jënt so timis ak gee ñoo bokk daruur yi ba fajar suba bokk moom kenn ñu ne kon mooy salaatul wusta muy wenn lay ñu ne beneen bi itam moo di ne ndem alquran mo wax ne inna salaatal fajr kaana mashuda moy julli gi nga xamne ne yi dañ koy fekke na malaaka yi fanan bala ñoo dem ñu julli suba malaaka yi len di remplacer danañ ñew ñoom bala ñi dem ñom ñaar ñu ñep ñu fekke julli ga ñi doora dem ñi door fe dess julli gogu ñep ay sédé kon mo gën lolu moy lay wa madina kan mo ci am deug suñu borom mo xam ndax alquran waxu ne genn la ulamaawul xadis dañuy dem di wax naan wala mu fassiroona yi ne yàlla nëbb na salaatul wusta ci julli yépp ndax nga def yépp rek ni mu nëbbee leelatul qadri ndax nga toppatoo weer wi yépp mu ne noon la la nëbbee it bàkkaar bi yóbbu safara ndax nga bàyyi lépp noonu la nëbbee gannaaw ambiyaaw yi noonu la nëbbee awliyaaw yi ba kenn kenn du leen xam ndax nga fonk doomu aadama jooju si yaakaar na ci la bokk mel na mag daana wax ne ku ne di wàllu yi la moom xamuñ ndax wax na dëggam déet waaye moom ma ko wax moom bokkut ndax ñi ci bokk duñ koy wax lu tax moom bokkut ndax ñoom du ñuy fen te loolu aw fen la ndax wax nga lu la wóorut dogg gi nga dogg ci di wàllu yi la xamoo ci dara son borom ne kon xaafiso wattu leen ala salawaati ci julli yi wasalaati ak julli ga alwusta guddi aji gën alquran danay waxee noonu mooy atful xaas si ala al aam la ko bayaan di tuddee waxoon na ko feneen tanazalul malaikatu mu ne war ruuxu te ruuxu ngi bokk ci malaaka yi kon ala salawaati wa salaat al wusta atfu al xaas ala al aam la loola foo ko fekk day jox daraja xaas biñ teg ci aam bi kon salaatul wusta dañ ko jox benn privilège benn tamyiz bu bokkul ak yeneen salawaatu yi am wa qoomoo taxaw leen xaaniti na ngeen di way toroxlu lillaay ñeel yàlla wayin xiftum bu fekkee julli ragal ñëw na nag da ngeen di xeex ba ragal ba mun a leen a julli normal kon fa rijaalan na ngeen julli di dox aw rukbaanan wala ngeen julli di war nu ngeen ko defee baax na fa iza amintum bu ngeen demee ba am kóolute nag ba xeex bi jeex faskurullaa na ngeen julil yàlla kama allamakum ni mu leen ko xamalee woon maalam takkunu lu ngeen nekkutoon taalamuuna di xam ko noonu ngeen di def léegi nag muy wax ba tey dénkaane nit ki balaa faatu na dénk lu ñuy jox jabaram kooku it mu fassiroo ne nañu aaya aaya aaya miraas bi moo ko folli mu ne walladina góor ñi nga xam ne yu tawafoona def na faat leen minkum ci yéen soo na ñu bàyyi aswaajin ay jabar wasiyatan war na dénkaane li aswaajim seen i jabar mataan loo xam ne ab dund la ilal xawli ba ca at ma xëyra ixraajin leen génne mufassirone yi ne nañ dañ ko folli ndax wu laa wasiyati li waarisin waaye ñi gëmul nasxu seen wax ji moo gën a dëgër foofu ñoom dañ ne bu nit faatoo te bàyyi fi dara war na ñoo jël ci alal ji loo xam ne jigéen ñi dañ koy dundee ren ba déwén te du bokk ci la ñuy séddale ñu ne loolu mooy wasiyatan li azwaaji mataan ila al xawli ndax li ko tegte li mooy xeyra ixraajin te duñ leen fa génne waaye fuqaawul malikiya dañuy bañ dañuy dal di wax ne bu dee rek njëlal kérok la dañ koy donno waaye dootul bokk ci alal ji maliki loolu la ñuy wax fa xaraj kharajna bu jigéen ñi génné seen bopp nag ñibbi fala junaadit bakara alaykum di war leen fi ma faal ci lolu ñu def fiyaan fi seen bopp in ma'rufin ci njëkk wallahu yàlla aziz naa junaat li ci kat hakimun aji qarala la walil mutalaqaati ñel na jigéen ñi fase ñëpp nak mataun yobbal dégg bil ma'ruf ci ci ci lu yam rek luñu xam xaqan deug la al muttaqin war nak ñi ragal yàlla kazalika nak nonu yu bay bayyinu laaw lay biral yàlla kum ñeen leen ayati alquranam la àllakum ndax yéen taaqiluuna ngeen am xel léegi ma ngi ñëw ci aw xeet lan moo koy dundal xam nga aw xeet bu ñu ragalee duñu dund ragal dee du tere dee waaye mën naa tax a dee sax ndax gis nga nit ko xam dafa ragal dee ba far tiit dee mu ne loolu dara jaru ko doomu aadama na ragal yàlla te def liñ ko war li ko yàlla waral rek muy xissa nag ci xeet yi nga xam ne ragal a ragal a ragal ba ragal jiyaar ragal a dee ba ñàkk seen diine ñàkk seen àddina far ngir ragal alquran alam tara ndax gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne xarajoo génnoon nañ min diyaarim seen kër ya uhum te ñoom ulufun ay junni lañ dañuy daw xeex di daw dee xasaral mawti ngir ragal dee ñu dem ba fa ñu dëkkoon xeex nekkatu fa dee ñëw ñu defa fa fa qaala wax lahum ñe leen laahu yàlla ne mootoo dee leen su ma yaaw mu dundal leen nakam ndax dee man ngeen koo rawati inna laa yàlla mii la doo fadlin borom nga ni la ala si ci nit ñi walakin waaye ak tanaasi lépp ci nit ñi laa yashkuroon dañ ko dul sant rek mënoo fexe fexe fexe ba nit ñi di sant yàlla fokk ñu sant ku dul yàlla te ñi gën a baree koy def walakin aktarahum laa yashkuroon وقاتلوا قيق لين في سبيل الله يونو يال واعلموا قم لين ان لا نك يال سمونا جي دغ لا علمنا جي قم من ذا الذي انا كان موي كيغا خامني يقرض ديل بالله يلا قرضا بر حسنا برفت تي علالم فيضعفه بي يلا ديكو فاي ديكو فلان لو نيل اضعفنا فلان كثيرن ني بري والله يلا يقبض موي تي ورسك تي نيت بومي ام توتي ويبسطو موي تالال ورسك تي نيت بام بري لي كون بول قول كي بري لي با نيان كو وايي بول سيتيت كي نيول با خيب كو دا يلا موكو يور رك نك bari na koo ëppale dàqoo ko góorgóorlu bari na ku la ëppale te mënut la kon nag yàlla moom yàq yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi ci yàlla yi turjauna defi delloo leen bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci qissatu nabiyu bani israil mooy yenente bu ñu naan samwil alquran tudd na ñaar fukki yonent ak juróom benn yonentaa ngi nii alquran tuddut aw turam te indi ay mbiram moo ko ñaar fukkeel ak juróom benn waaye lu ma yonent yi ku la wax beneen yonent ah wax na ko rek mën naa nekk mën naa ñàkk nekk waaye ñaar fukk yi ak juróom ñoom alquran leen tuddal boppam yooyu moom dogu nañ ci dem nag naan téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ah loolu moom mu ngoog noonu rek waaye ñaar fukk ak juróom moom alquran wax na ko kenn kii nag alquran dafa wax mbiram waaye tuddul aw turam ba léegi muy samwil ulamaaw tafsir dinañ koy jame xam nga dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi fi Muusa jógee toog nañ juróomi téeméeri at yonent yàlla Isa ñëw ba dem juróomi téeméeri at mu door a ñëw ñuy ulama tafsir di jame ne ana ban yonent moo ñëw gannaaw Moussa bu dul sa bu ñu ko waxee te seetluwoo mutabaadam da nga naan amul rek Isa moo topp ci Moussa ngay wax waaye boo seetloo alquran am na kay mooy samwil alam tara ila al malai min bani israil min baadi Moussa te bokkul ak Isa Isa balaa moo ñëw samwil moo ñëwoon ci bani israil Samuel ba mu ñëwee yahud yi ne ñun dañoo bëgg daal comme yow Samuel yaay yonent bi te yow bokkoo ci zuriyatu yuusufa binyamin te seen xissa dafa gudd ndax yaqooba ba muy jël jabar ci kër najaayam nijaayam da ko mayoon ñaari doomam yu jigéen dagan na ci sharial yahud mayaale ko doom ju jigéen ju nekk mu mayaale ko jaam bu jigéen mu indiwaale ko yàquba ñëwu dal di takk ñépp ñaari doomi ndey yi bokk ndey ak baay ku nekk kab jaamam mu am ca ku nekk ay doom bani israel nag loola dañ ko bàyyi xel ku ci jóge ci ñi nga xam ne ay gor lañ boo nekkee yonint mën ngaa nekk buuru bani israel boo nekkul yoninte it mën ngaa nekk euh, buuru bani israel waaye ku ci jógee ci ñaari jigéeni jaam ñale bu la yàlla yónnee it nag doo nekk buur bani israil léegi nag ñu ne samwil bokkut ci zuriyatu binyamin kon nag euh, nañu dem mu wutal ñu buur bu bokk ci zuriyatu yusufa binyamin su ko defee kooku nu ànd ak moom mën a xeex ak jababiruti yi ak nga xam ne ñooy suñu noon yi muy amaliq yi muy arab yi ñëw nag wax ko samwil mu ne waaw da ngeen a bëgg jiyaar ak seen noon yam ñu ne ko waaw moo tax ngeen di laaj ab buur mu ne waaw mu ne mais man dama ragal yàlla yebal ci yéen jox leen benn buur ne na ngeen xeex ak moom na ngeen ànd ak moom xeexi seen noon ba ngeen ragal ñu ne def ko rek soo ko ñun duñ ragal mu daal di laaj yàlla yàlla ne ko am na ku naan taaluta ngi bokk ci ñoom kooku na nga ko désigné mu nekk buuru bani Israël yow nag yaa yore nubuwata gi mu woo bani Israël ba ñëw mu ne leen taalota de la yàlla wax ne mooy buur bi ànd leen ak moom ngeen jiyaari gaa yi ne taalota way kooku fu muy nekkee buur ah yi tax a nekk buur de ci ñun yëwat amu ko mooy amut alal te ñun yëwat dafa bëgg alal comme amut alal mënul nekk buur alquran ni leen non sarti buur kat da ngeen a jum waaye du alal moo de ne nit ki bu amee kattanu yaram te wér te am xam-xam rek yelloo naa nekk buur alal du ci sart fi li ilmi wal jismi rek bu wéreete am xam-xam rek mën naa nekk buur a ah, ñu nekkoon nangu nañ taloo te jiite nag xare bi am na ci biir xare bi benn gune bu tudd Dawud ñu ne léegi yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wasalaam ba mu nekkee azizu misra bani israil yaquba ak mbokki yusufa yi fukk yi ak benn gàddaayoon nañ jóge palestine ñëw fekk si ko égypte muy afrique léegi nag ba nga xamee ne yonti yàlla Moussa ñëw na di xeex ak euh, aqbaat yi moom moo gàddaay jël fukki famille yi ak ñaar ci bani israil muy fukk ak benn gàddaayoon ak yusuf mu gàddaay ak ñoom jaar ak ñoom baaru xalzoom jàll ba ñuy dem nag dañu am benn waxande woo xam ne waxande woo xam ne bagaas yonti yàlla yusufa muddoom ba mbaxana yaquba ma yetam wa yooyu yépp mu nga ci biir ak yu bari ñu def ko ci wenn waxande nag jàllale ko dem ak mom palestine ñu daje ak jababirut ñu duma leen nangu waxande wa ban israel nak di joy rek fuñ wax rek ni ñun dana torox ndax li nga xam sakina la tay baqiya mimma taraka al musa wa harun lolu sag nañ ba jababiruti jël nañ ko ñu ne léegi na fu ñu am général buñu and ak pour xeexi ak ñoñu pour nangu waxande wow ana lu xew bi yàlla nang nangoo euh, naree dimbali ñii jababiriti yoreen waxande wi ñoom it dañu toog ba yàgg ne ñun daal bi waxande wi bi ñu ko nangoo ci yóot yi ba tey fii tawut waxande wi dafa gaaf ñu takkaab saret teg ci waxande wa rek ne ko dellool ne ko delloo ba sànni leen ko loolu moo tax bani Israël la ñu ne ñu ne waaw euh, Samwil taaloota mii nga ne mooy nekk buur xanaa kuy nekk buur ci nit walla boog bu naree nekk bu yonent xanaa war naa am benn kawtéef gu muy indi Samuel ne waaw kawtéefam gi mooy waxande wi gannaaw ëllëg dana leen ko indil waxande wi ngeen ñàkkoon ba bëgg a dee dana leen ko indil ay malaaka ko yenu indi teg ko fii ngaa ñu yeen waxande wi génne ko ñëw sànnil leen ko ñu ne ah kon day wax na dëgg ñu daal di nangoo topp ci ngóor sa ñu war a xeexi ba ñu génnee taluuta ne leen noo ngi nii dina ra jógee Palestine jëm Cham fokk danañu war a traversé naarul Urdun suñ koy jàll nag am na fa branche boo xam ne ndox mu neex la suñu demee dinaa leen jox benn nattu bu ca kenn naan su ngeen ca naanee rek danañ ñu duma bu ñu see ku nekk na tànk ci loxoom benn yoon rek naan te doyloo loola mu ngi leen di jàngal doylu bu ngeen ko defut bu ngeen naanee dañ ñu dàq ñu yegg si fekk ñaa ngi sonn lool ñu sëgg rek naana naan naana ba seen biir yi fees yahut yi tëdd mënatu ñoo dem xaaj bu tuuti ñoo def lii taloote waxoon naan tuuti rek bañ ne nañu jàll fekki jàlloote ci bale boor ñe ñoom laa taaqata lana al yawma bi jàlloote wa junudi ñun mënunu duñ dem sun mbooloo si nuy jàll fekki ñii talootu dal di jàll ànd ak dawut ak mbooloo ma dawud nekk benn xalel bu tuuti ci seen biir ba ñuy jàllee nag ba yegg ñoom nag ñu ne ñu ngi toog fii bu ñu dàqee ñële ñu seen leen ñuy dàqee ñoom ñu ñibbi waxe ko ne gaañe day alku nañ ñu taxaw ci gannaaw gannaaw naarul ordon nga xamee ne samp nañ xare bi dal dina te bàyyil ma defanteeg moom ba mu rey ma ba daawuda génn nekk genn be be benn benn gune yorew lu may ak mbëq yore genn sonk jere def ci ay ay xeeram bëgg a dajeeg moom jàllootu daal di ree gune gu tuuti yore lu may ak mbëq ba bëgg a man mi nga xam ne maa ngi yore ay ngannaay yoo xam ne yuy ñëw la dangaa bëgg alku mu ne ko dinaa la rey ci mbëq gi ñu defante rek ñu defante rek daawuda jël xeer yi di ci def di mbëq rek jam ci bakkan bi mu toj jam ci bopp bi mu toj <coughs> waa ji dal di daanu xare ba dali daw ñu dal di dàq ya dellu si alquran nag ne ak waara ngóob mbooloo su tuutee ngóog not nañ mbooloo mu bari ndax dañoo am iman kon iman lu am solo la loolu la bëggoon a wax te it mbooloo su tuuti soosuy jaay seen bakkan ngir adina baax ñoom ñoo défendre ñeneen ña bañ am jàmm waxtu woo gisee jàmm fenn am na ñoo xam ne noppaliwuñ ñoo tax nga am jam loolu quran di wax naan alam tara ndax gisoo ndax xamuloo ilal malayi ci mbooloo min bani israil min baadi Musa gannaaw Musa is qaalu ba ñuy wax li nabiyin ñeel ab yoninte lawum bu ñeel leen ni ibaas yónnil lanaa ñeel ñu malikan buur nu qaatil nuy xeex ak moom fi sabilillah qaala mu ne ala asitum ndax ndax yi da ngeen bëgg ndax mébét ngeen in kutiba ndem farataale fe na aleykum ci nal qitaal xeex alaa tuqaatiloo ba ngeen xeex tit xaaloo ñu nga naan wa maa la naa loog ñun alaa nu qaatila dun xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla lu tax dun xeex wa qad uxrij naa te génneef nañu min diyaari naa ci suñ kër ya wa am naa yi naak suñu doom ya falama kutiba ba farataalee fi alim ci ñoom alqitaalu xeex tawallaw ñu dëddu daw ilaa qalilan lu mooy lu tuuti ci ñoom yàlla alimun aji xam la bi daalimina ci way tooñ yi wa qaala wax na law ñe leen nabim seen yonent bi ne inna laa nak yàlla xad baasa yónni na lakum ñee leen taaluta malikan muy buur xaaloo ñu ne ana yakunu fan lay tukkee lawa ñeel ko al mulku nguur alay naa ci ñun wana xam te ñun axaqu ñoo gën a ayoo bil mulki ci nguur gi minu ci ci taaluta walam yoota joxee fu ko sax saatan ak yaatu min al maali ci alal yoru dara qaala mu ne inna laa nak yàlla istafaahu tànn na ko aleykum ci yéen wa zaadahu yàlla moo ko dolli basatan ak yaatu fi la ilmi ci xam-xam wal jismi ak wér yaram kon mën na buur wallaahu yàlla yootii day joxe mul koo nguuram man yashaaw ku ko neex wallaahu yàlla waasun aji yaatu la alimun aji xam la aarifoona yi ñoo xam ne yàlla aji yaatu la ñoom rek ñoo xam boo baat li muy tekki yàlla lu yaatu la mooy li mu nekk xam nga yaatu na trop ba fooko ko foogut wa qaala wax na la um ñee mu seen yenente ne inna ayata nguuram ga an yaatiyakum mooy mu dikkee mu andil leen attaabuutu waxande wa fii nekk na ca sakinatun ak dal min rabbikum bàyyi ko ci seen borom wa baqiyatun mu nekk di ndesit mimma taraka ci la bàyyi na ko ala Musa wa wa alu Harun taxamiloo di yenuk almalaayikatu malaaka yi inna fi dalika aji nekk li ci loolu laayatan kawtéef lakum ñeen leen in kuntum dem nekk ngeen muminin di way gëm yàlla fa lama fasala ba génnee taaluta bil junoo dég lel ba xaala mu ne ina laa nag yàlla mubtalikum aji nat lu mu leen bi naharin ci mu yolnde moo di ndox moo di xur fa man shariba kun naan na minu ca ndox ma fa laysa min nii bokkatut ci ñi am iman bay ànd ak man wa man lam yatmaahu ku ko mosut fa innahu kooku min nii bokk na ci man illa man ixtarafa lu mooy ku tànq na xurfatan ab tànqiin bi yedd yi ci loxoom waaye bañ demee fa shariboo ñu naan minu ca ndox ma illa qalilan lu mooy lu tuuti minum ci ñoom fa lama jaawasoo ba ñu romboo ndox ma rek huwa moom taluta wala ji nag ñi nga xam ne amunu gëm nañ maa waan ak moom gaañ a bañ a jàll xaaloo ñu nga naan laa taqata déet benn xeeti kattan lanaa ñeel ñeel yow ma tey bi jaaluuta ñun mënatunoo dem wa junoo dégle lam ba xaala wax la ci ne ñi nga xam ne yazunuuna dañoo wóolu ne annahum naka ñoom mulaaqu laahi dañuy dajeeg yàlla ñu ne loolu du ci dara ndax kam min fiyatin bari na kuré xalilatin bu tuuti xalabat not na fiyatan kuré katiratan bu daa ji bëri bisimilahi ci ndigalal yàlla walaahu yàlla maa saabiriin ànd naag ñiy muñ li jaalootu ba janoog jaalootu wujjunoo dégle lam ba xaaloo ñu nga naan di ñaan rabbana yàlla afrique yan nga sotti alay ci ñun sabran ak muñ wa sabir yan nga saxal aqdamana suñuy dëggu wansur naa yan nga dimbale ñu alal xaw mi ci ni ñal kaafiri ñi ñi di way weddi faasa moohum moo tax ñu gañe leen bisimilahi ci ndigalal yàlla wa qatala rey na daawudu jaalootu jaalootu kooku moo nar a nekk si yonte yàlla daawud wa taaw jox na ko laaw yàlla moom daawud almulka nguur ga wal xikmata xam-xam ba wa allamahu xamal na ko moom daawud yàlla xamal na ko ci lu ko neex walaw laa dafullahi donte ko nag juñug yàlla naa sa nit ña baadum ñenn ci ñoom bi baadin ci ñenn ña donte ko nag li ñenn ñi li jiñeel ñenn ñi ay la fasadat fekkoon na yàqu tey du suuf walakin allah waaye yàlla zo fadlin borom nga ne la alal alamin ci bindee fi ki ñu doon jàngal daana wax ne bu fekkee amatu naas yi ñëpp ñëpp dañu doon moy yàlla yàlla du def dara waaye xaasatu naas yi ni nga xam ne ñoo am taqwa ñooy xaasatu naas yi ulamaaw yi buñ ci bokkee rek su mbugal mi ñëwee ñëpp la ñuy daal di yóbbaale moo tax mu ne walaw laa dafau llahi naasa baaduhum bi baadin la fasudat il ardu walakin allah zo fadlin borom nga nel la alal alamina ci bindee fi tilka lii ma doon nettali ci talutaak jalutaak samwil ak daawud yépp ayatullahi kaawtee fi yàlla la maanaa lu qissa bi jëriñ mooy yow yenente bi fekkee woo lii te mënoo bind suñ bindee doo mën a liir kon boo ko nettalee mu rafetee nii li muy tekki kon moom ma mooy motax mu ne ci ke tilka loolu ayatulahi alquran yàlla la natlu ñu ngi koy jàng alayka ci yow bil haqq ci deug ñu sédena wa innaka kon yow la min al mursalin bok nga ci ñi nga xam ne dañ leen a yónni صدق الله من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم احمنا واحمي بلادنا اللهم احمنا احمي بلادنا وحكامنا وعلماءنا اللهم احمنا واحفظنا ولا تكلنا الى غيرك واحفظ علماءنا واحفظ حكامنا وبلادنا وبلاد جميع المؤمنين اللهم هم أمم بالسراء والتوفيق رعي المسلمين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واغزل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واجل أموالهم وضراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رحيم يا رحمن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 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بورني ne من دون وخ wax ak daawudaak taalutaak jalutaak ñooñu yépp tilka rusulu yooyu faddal naa gënal nañ baadahum ñenn ci ñoom ala baadin ci ñenn ña yemuñu daraja ca yàlla ndax minhum nekk na ci yonent ya man koo xam ne kallama waxe na ko laahu yàlla mu mel ni Muusa wa rafaa yàlla yëkkati na baadahum ñenn ci ñoom darajaatin ay daraja ca kaw ñenn ña mu mel ni sayyiduna alayhi salaatu wasalaam waatey na joxoon nañu Isa ibnu Maryam albayinaat lay yu weex ya yooya nga xam ne ay kawtéef la wa ayyadnaahu ñu dëgëral ko bi ruuxil quddusi ci jibril mu di ko dimbale walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatala du wuute alladina ñi nga xam ne min baadihim ñoo ñëw ci seen gannaaw bu neexoon yàlla ñoom ñépp ñu soobu mel na ngéer min baadi ma jaathum gannaaw ba dikkalee leen albayinaatu lay weex yi te moo di alquran kin waaye waaye ixtalafoo wuute nañu fa minhum nekk na ci nit ña man koo xam ne aamana gëm na wa minhum nekk na ci ñoom it man koo xam ne eh, kafara weddina walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtataloo kon du ñu wuute walakin allah wante yàlla yafaalu day def rek maa yuridu li nga xam ne moom la namm bàyyi na loolu ma ngi jëm si ci ñaax ab julit ci mu joxe ci lenn li nga xam ne yàlla wër wërsëgal na ko ko loolu lay wax naan yaa ayyuha alladina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran anfiqu dundalee leen mimma ci lenn ci li nga xam ne naa razaqnaakum wërsëgal nañu leen ko kañ ngeen ko war a def min qabli an yaatiya njëkk bay dikkalat dikkat yow mun bés boo xam ne su ñëwee la bayun déet jaay di jar di am njëriñ fii ci bés ba wala xullatun déet ak xarit di fa jariñ te mooy yowmal qiyaama wala shafaatun déet yaakaaram ramu itam di jëriñ foofale kon na ngeen defal seen bopp balaa bés boo boo yegg si nga xam ne bu ñëwee boo jaayee du jarati boo yaakaaree xarit bu la dimbalee du sotti boo bëggee kuram mu wax ci say mbir du baax wal kaafiruuna keroog yéefér ya hum ñoom daal addaalimuuna ñoo di way tooñ seen borom ci loolu bàyyi na loolu mu ñu mu nag ci li nga xam ne moo di tudd borom bi tabaraka wa taala jox ko gëddëm ak nan la yàlla tollu mu ne allahu yàlla laa ilaha déet benn buur ilahu wa lu may moom alxayu yàlla moo dund te dund goo xam ne amul fu muy yem alqayum yàlla moo sax sax goo xam ne du jeex laata laa taaxuduhu yàlla du jàpp ku mukk du ko jàpp mukk sinatun gëmmantu wala naw mun du jàggee nelaw kooku rek moo mën a nekk buur koo waaye képp kuy nelaw wala ngay gëmmantu doo mën a nekk buur yàlla mi ye mën a nekk yàlla nag moom du gëmmantu te itam du nelaw yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam daf ne yow sama borom ndax danga nelaw yàlla ne ko Moussa danaa la tontu jëlal fukki nen nga téyel ma ko ci sa loxo ma dénk la ko Moussa jël loxo bu nekk mu téye ci juróomi nen raak ko yend na ak moom fanaan ak moom yendooti ba ci guddig ñaareel ga musaa daal di gëmmant ba mu gëmmantoo rek nen yi wadd rek am yi ci toj mu daal di ne turéet yeewu boroom ne ko Moussa looloo ma tere nelaw nag su ma nelaw woon dina yépp noonu lay mel kon nag yàlla moom laa taaxuzuhu du jàpp ko sinatun gëmmantu wala naw mun du caageen nelaw la wa ñeel na ko cig moomeel waaye du wut ak njureel maa fi samawaati lépp li nekk ci asamaan wa maa fi l ard li nekk ci suuf man dalladi ana kan mooy ki nga xam ne yashfau moo ma nar a mu indahu fa yàlla ana kan moo am kattan kan moo jege yàlla kan moo am daraja ba mën a taxaw fa yàlla naan musalal diw ci safara ak diw ci safara ana kan moo ko man illa bi iznihi lu mooy qanaa ci yàlla rek yàlla moo ko man yaalamu yàlla moo xam ma bayna aydihim la nekk na ci seen kanam wa ma xalfahum ak la nekk ci seen gannaaw wala yuxiituuna du ñu mën a léem léem mooy xam xam bu wër bi cheyin dara min ilmihi xam-xamu yàlla bi kenn mënu caa xam illa bi ma shaa lu mooy li ko neex mu xamal la ko wasiya ëpp na kursiyuhu gàngu naa yàlla gi asamawaati moo ëpp asamaan wala ard suuf kon fan lay tegee <clears throat> tegee wut ci ñoom kon ndax moo leen ëpp te loolu itam moo jaadu ku tol ni yàlla bu yaam kursi yi war na ëpp asamaan ak suuf ñu ne ah kon day gàngu naay gi rëy na xaw ma kon nan lañ koy dencee mu ne ndaxam day wala yauduhu diisu ko xifzuhuma wattu gàngu naay googale wa huwa yàlla al mooy aji kawe te kawe wut ci béréb ala azim mooy aji màgg te màggee wut ci aw yaram bàyyi na loolu <clears throat> laa ikraha fi diini loola la ko texe wàcc dañu nekk ci ne ku ñaan abal xuseyn abal xuseyn mu ngi bokk ci bani salim ibnu awf mooy ñooñu nga xam ne ñoo dëkkoon ci atraful madina <clears throat> ba yonent bi ñëwee mu defal leen seen jàkk ji dalool leen ko loolu mu indi woon masjidu diraar na mu xale ñëw incha allahu ca saar yi ca kanam moom nag dafa amoon ñaari doom yu góor ñaari doom yi daal dem nasaraanu dugg ci diine isa moom nag fekk ma ngi ci lislaam mbir ma naqari ko lool ba yonent bi gàddaayee ñëw ma dina nag mu daal di kalaame gune yee ci yonent bi daal di ne duma leen bàyyi mukk mukk mukk lu mooy ba te ngeen duggee ci lislaam duma leen bàyyi ndax bugguma lenn ci lu jógee ci man di dugg safara te lislaam ku ko fi bàyyi da ngay dem safara ba mu leen kalaamee ci yeneent bi ba yonent bi ne gune yi nañ wax gune yi ne ñun diine ji moonu neex góor gi nag daf na bëgg a forcé ci diine ji mu nekk yàlla ne laa ikraha déet génn na xeetu forcé fi diine di nekk ci diine ku mën dugal ku mënul bàyyil waaye boo duggee ba sottal nag dañ lay forcé ci loi yi danga koy topp nag xata bayyana biir na arush du njub ma minal xëy yi ci réer gi waman yakfur ku weddina bi taaxuuti ci iblis wa yumin mu gëm billaay ci yàlla kooku faqad istamsaka jàpp na bil urwati ci buum ga alwusqa gu dee ji dëgër lan fi saama déet ak facc ak ak ci kook dagg laa ci dee buum googule wallaahu yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam la allaahu yàlla waliyu ladina amanu moo méngoo mbiram ñi nga xam ne ñoo gëm méngoo na ko ba yuxrijuhum mu ngi génnee leen min adlimaati ci lëndëm ak tooñ ila nuuri jëm ci leer gi nga xam ne mooy imaan iman walladina ñi nga xam ne nag kafaru weddi awliyaawum kii méngoo seeni mbir moom ab taaxuutu moo di seytaane yuxrijoonahum seytaane yaa ngi leen di génne min nuuri ci leer ak imaan ila dulimaati jëm ci lëndëm ak weddi ulaayika ñii génn ci imaan jëm ci kufru asxaabu naari ñooy boromi safara hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiyaa ci safara soosule mu ñëw ci wor gi nga xam ne nit ku weddi yàlla mën na ko waru namruud ibnu kanaan benn waay la woon bu nekkoon buur nekk taaxi nag ci jamono ibrahim namruud li ibrahima nekkutoon ci diineem weddi diiney seen bàyyeeg seen maam yi metti woon na ko mu ne léegi nag dinaa discuter ak Ibrahima ba xam ndax man maa koy ay walla déet ñu toog mu ne Ibrahima waaw yow kan mooy sa yàlla mu ne man sama yàlla mooy ki bind mbindeef yi mooy ki nga xam ne mooy rey mooy dekkal ah Namrod ne ko accam mayit mën naa rey mën naa dekkal mu ne ko Ibrahima ne ko defal Namrod indi ñaari nit rey kii bàyyi kii ne kii rey naa ko kii maa ko dundal ndax su ma neexoon mu dee Ibrahima ne waaw kon nag man sama yàlla mooy fenkal jant ci penku yow it na fenkal jant ci sowu ma seet Ibrahima dal di ko gañi ci wax léegi nag dal nay waru la mu yaakaaroon yépp dara amu ci te taxu koo gëm ndax zulmu ak shirku ga nekk ci moom moo koy teree dellu si waar du ko jajj moom la buur naan alam tara ndax xamu ila lazi ci ki nga xam ne xaaja werante na dàgge sant na ibrahim fi rabbihi ci boromam lu tax anaataaw ndax jox na ko laaw yàlla almulka nguur is kaala bay wax ibrahim ne rabbi man day sama borom allazi mooy ki nga xam ne yuxyi day dundal wa yumiitu muy rey kaala mu ne ana manit ux yi mën na dundal wa te may rey xaala wax ibrahim ne kon nag fay na laa yàlla man sama yàlla ji yaati dafay indi bi shamsi jant minal mashriqi ci penku yow faati indil biyaa ci jant bi minal maghribi ci sowu ba fa buhita dal di wedam la foo wedam loof la zi nga xam ne kafara weddina wa qaala mu ne wallahu yàlla boog laa yaa di du jubal alqawma nit ña addaalimiina ña di way tooñ mu ñëw ci qissatu Uzayr bani Israil dañu amoon ku baax ku tudda Usayru ñu màggal ko ba nga xam ne nee nañ Uzayru yàlla la ñu réyal mbir mi lool te loola bi nga xamee ne Daawuda rey na Jaaluuta te jaaluuta moo doon buurub amaliqiya buuru amaliqiya muy jaaluuta jàngoon nañ ko démb ba ko daawuda reyee daawuda dafa nekk buur ci bani israil boole nguur gi ak nubuwatu ga gannaaw daawuda suleymaan doon na loola banu israila bew nag dellu ci foontu ak i caaxaan mu fassiroona yi ne yàlla yónni na fi keneen ku tudd armiya armiya ñëw waar leen waaru fekk na boobu am na benn buur bu nekk ca babil te moo di iraq ak la ko wër buuri babil ba nag bu dëgëroon la kooko daldi yàlla xiir ko ci mu takk xare na day xeex ci Shaam alak bani Israil bi nga xamee ne takk na xare bëgg a dajeeg bani Israël yàlla dogal buur ba daal di ragal ragal waa Shaam daal ndax seen yëngoog seen doole ji mu dégg yàlla dogalu ko daal waaye kenn ku naan buxtana sar nekkoon ci ay soldaaram moom demoon na ba dugg Sham nekk Palestine dëkk ak yahud lu yàgg dal di xam nag dëgg-dëgg gi ne ah ñii ndeke fax-faxa moo nekk ci kaw waaye kattan nekku fi njàmbaar nekku fi doole nekku fi kon ñii man ku ma yebaloon ma nekk njiital xare mën naa dal ci seen kaw ñu daal koy yebal moom buxtu na sar mu dugg Dimishq daldi yéwee nag ñoom dugg baytul maqdis yahud yi ragal ko daldi masla ak ñoom jox ko alal joo xam ne ju bari la léegi nag yahud yi daldi dem ci seen buur ba ne waaw yow <coughs> mu daldi ñëw ne yow bur bi fi armiya bur bi nga xam ne mooy jóge baabil ñëw fi lan moo tax ngay maslaag moom di ko jox alal di ko jox ak jur mu di ko yóbbu mu mel ni ñun dañoo ragal a xare ñun nangu wunu masla bi ñun fasanti wuñu ak moom benn kóolëre ñu daal di firi kóolëre gi nga xam ne seen buur ba ñoom yahud ya façon na ko ak buxta nasar buxta nasar nag ak xareem ba kon dal ci yahud ya mokkal falas palestine mokkal baytul maqdis rey leen kees ji rey jàpp gune ya jàpp jigéen ña seen àddina tukki dëkk ba dal di gent xut sa kenn nekk dafa mu jeex tàkk ku dëgër bañ ñu rey la ku doye dañu jàpp la noonu la buxtana sarbabil noonu la def euh, Palestine wala Quds ñooñu ñu jàppoon nag ñu nekki gune am na ci benn xaleel bu tudd Usayru boobu moom xaleel la ñu dem nag sax baabil gannaaw ga buur bi nga xam ne moo fa nekkoon ca Babil dal di faatu doomam dal di ko wuutu doom ja wuutu ko nag ca nguur ga comme léegi yahudi yi yàgg nañu ci Babil jaxasoo nañ ci waa dëkk bi lañ am nañ nationalité ak lépp ñu bokk ci peuple bi mu am ci nag benn jànku yahud bu rafet buur bi bëgg kaa denc mu mujj dem denc ci bani Israël kenn ba mu ko dencee am ci ay doom ba mu ci amee ay doom nag doom yooye ba ñu màggee ñoom ñëpp seeni nijaay nekk ay yahud ñu commencé am atifa ak ak mbëggeel ak yërmande ci yahud ndax mooy seen néegi ndey ñu tàmbali nag di yolombalal yahud yi seen mbir daal ak ni ñu leen daan jaamaleeg di leen métital ñu tàmbali di ko woyefal Uzayru nag léegi dund na ba am na ñeent fukki at mu toog yàlla dal di ko yónni def ko nabiyu waaye defu ko woon mursal ba ko yàlla defee nabiyu mu dal di woo jabar ji ne ko léegi day sama boroom yebal na ma damay dem Shaam mu ne ko ndax dañ laa yónni mu ne ko waaw yónni nañ ma daldi woo taawam doom ju mag ji ak jabar ji ak mbindaan mu jigéen doom ji ne ko doo dem ndax saam gent na dara nekku fa te bu la buuri baabil yi yégée ne yaa ngi dem ñu dab la te kon ñu rey la mu ne waaye sama borom yebal na ma fokk ma def ko ah gannaaw gi ñu bàyyi ko Uzayru dem wax ak benn jula ne danga may luyee sa mbaam mi ma dem ci Sham ñu waxaale ba kooku ne ko bu njëlee danaa indi mbaam ma ñu tase ci béréb sàngam waxtu wa jot rek Useyru dal di génn tàggoog jabar ji ak doom ji wekki benn jaaroom solal ko jabar ji ci loxo dal di dëdd nag mu dajeek jaaykat boobale muy commerçant ba ko doon jox mbaam ma ñu dem ba mu yeggee ba yegg baytil maqdis mu wër dëkk ba di wër di wër di wër di wër gisut lu mooy ay kaa ngi bopp ak yaxu yeeli nit dal di fàttaliku ndax jamono ji ñuy tëj dëkk ba fukkeet ak ñett laam ñu jàppoon ko léegi nag buur booba nga xam ne dafa dencoon ci bani Israayil ba am ci ay doom euh, doom jooju ba buur ba dee doom jooju nekk fa buur tey léegi te ay nijaayam yépp nekk bani Israayil moom mu xëy rek dal di joxe ndigal ne képp ku bëgg ñibbi euh, Sham jox nañ leen ndigal bu la neexee nga ñibbi te yahut ñibbi rek fuñ dëkk fokk ñu dellu fa banu Israayil yépp dal di jóg boo bani Israël ña ngay commencé di dellu léegi nag ñu may leen diir boobu nag nga xam ne ci la Useyru génn demoon Saam moom kenn yàlla yebal ko ak diir bi nga xam ne ci lañ may ndigal bani Israël ñu taxu dem Saam man na fanweeri at wante Useyru nu mu def Useyru ba mu demee dafa wër dëkk bi wër dëkk bi ba dëkk bi jeex mu gis garab garabi figg yi muy gën yi ñu ngi màgg ba law ci suuf si meññ meññeen mi daanu beneen wuutu ko kenn du ko lekk ndax kenn dëkku fi mu dagg ci figg bi lu baree bari mu gis garabi raisin yi itam ñu ngi law meññ foofu kenn du ko dagg ndax kenn dëkku fa mu dagg ci raisin bi lu takku daldi ko nal ci mbuusam mi def ko ndoxam muy ndox mi muy naan bu lekkee ci sigg bi naan ci ndoxu raisin bi mu taxaw nag ci genn garab wekk fa mbuus ma mbuus maa ngi def sigg bi benn baa ngi def naan gi mu yeew fa mbaam ma taxaw walbatiku nag jàkkarloo ak baytul maqdis daldi ne eskay bii dëkk sama borom de xam naa ne moo fi gën a mën a am kàttan mu fi ëpp kattan waaye dëkk bii ni mu géntee yaakaar naa mënatu koo dundal xaw ma nu mu ko nu mu ko mën a dundalee daal foofu muy wax loolu rek ngelaw dal di upp rek mu daldi di dee fekk ma ngi ci benn xunt mu ndaw mu dëggoon di làqu tàngaay bi ngelaw upp ko rek mu dal di dee foofu léegi nag bani Israël babil jox nañ leen digal kum neex nga ñibbi gaay ñep toxu si ku ne xàmmi sa kër maam ñi nga xam ne bi leen jàppoon gune lañ ñu xam seen kër baay fu mu nekkoon ñu tabaxaat sañcaat dëkk bi Useyru moom demoon na ba am fanweeri at ñi door a digal gaay yi ñu ñëw nekk Useyru dee na fàttee nañ ko ay mbokkam ne dee na taaw bi toxu ànd ak ndey ji ak seen bindaan ma doom ju mag yi ñu toxu ba ñu ñëwee ndek raat ñoom it dëkk toog comme ñëpp rek oseyro nga ci deega tegaat na ci juróom benn fukkeet ci deeg yi muy téeméeri at oseyro dee na ko ba yàgg rek mu neex borom bi ngelaw upp rek mu daal di ne bëreet ba mu dekkee yàlla ne ko xoolal sa naan gi soppeekuwul foroxut xoolal sa gën gi figgi bi nga doon lekk saxewut wowul xoolal nag mbaam mi ay yax nga ciy fekk mu gis ay yax yu sole ci mbaam mi mu xam ne kon lii yàgg na yàlla nga koy won moom mi waxoon ne naka la yàlla di mën a dundalee lu dee lu mel ni dëkk bi mu ne ko nag léegi ñaata nga fi ñaata nga tëdd fii mu ne yàlla ah genn wàlli bés ndax ci tàkkusaan laa duggoon ci pax mi comme ci tàkkusaan la woon nag te léegi yoor yoor la génn wàlli bés la ndax mooy guddi gi rek yàlla ne ko déedéet téeméeri at yaa ngi fii xoolal mbaam mi yax yi sax ñu ngi bëgg a jeex mu daal di xool yax mbaam mi daldi di ne ah man de xam naa ne kon ndekk yàlla mën na lu ne yàlla ne ko ma wonaat la kéemaan sa naan gi soppeeku sa figg bi saxewut wowut yaxi mbaam maa ngi bëgg fu na xoolal ni may dekkale mbaam mi léegi bi mu mel ni ngelaw ñëw rek yaxi tàmbali di dajee composé wu dal di nekkaan mbaam mu dal di jóg taxaw am yàpp kawar mel na meloon taxaw yàlla ne dama bëgg lii nekk kéemaan goo xam ne yow mi ko gis da ngay gëm ne man yàlla mën naa dekkal ku dee ndax yaa ci teg sa bët dama bëgg ñi ngay woo nga xamal leen ne man yàlla mën naa dekkal ku dee Uzeyru war mbaa moom gàddu mbuusam ñëw fekk dëkk bi yépp dëkkaat nañ ko mu waaru nag ñoom ne amoon nañ dég-dég ne dee na mu ñëw nag di laaj këru Uzeyru ñenn ñu ko laaj ñuy gune xamuñu ko ñu laaj ay mag ñu ne Uzeyru de deewoon na boobaak léegi kenn xamut ndax déggoon nañu suñu bàyyi di ko wax ñu ne waaye kër kër doom jàng ak jabar ja mu dal di ñëw ci kër gi leen ñu fay ko yow kan mu ne man Useyru ñu dal di ne Useyru Useyru nga xamné ne téeméeri at boobaak léegi ndax jabar ji <clears throat> jabar ji légui magena lool ma sax ja doom ji nag léegi mooy wara a léegi ci lu mel ni ay juróom-ñett fukki ak yooyu Ousseynou nag ma nga ci ñeent fukki yi mu nekkoon dafa dekki toll foofu léegi doom ji mag na ko ndax doom ji dund na fi juróom-ñett fukki at Ousseynou ngi ci ñeent fukki at ndax dund gi dafa taxawoon loolu kéemaan la gu yàlla di def gëmuñu wax ja ba ñu discuter ba mu sori nag jabar ji ne ko léegi bu fekkee ne yow yaay Useyru Useyru moo doon sama jëkkër ba may tàggoog moom lan la ma joxoon ak lan la ma waxoon mu ne ab jaaru ndaw si ne ko jaaru baa ngi nii ñu ne ko bu fekkee yow yaay Useyru Useyru rek moo fi mokkaloon tawraat taril mu tari ci ay fiqra ki saar yu bari ñu door a gëm nag ne ci mooy góor gi ñëw na nag mu daal di nettali mbir mi yent bi alayhi salaatu wasalaam nag jamonoom ak jamono kii ni mu soree yàlla nettali ko xissa bi ne ko yiwit da ko dëgëralee sa imaan ne ñi dee ñëpp naa leen dekkal ndax nga seet ni ma defoon Uzayru moo taxoon Uzayru yahud yi gëmoon ko ba naan doomu yàlla la Uzayru ibnullahi lañ ko doon wax ndax dem na ci yàlla téeméeri at dellu buur ne aw kallazi nga xalaat ci lu mel ni ki nga xam ne mara romb woon na ala qaryatin ci dëkk wayete dëkk ba xaawiyatun aji daanu la ala urushiha ci tiigam ma xëdd ba yépp daanu na ci suuf qaala wax waaje gis loola ne ana yuxyi ana nan lay dundalee allahu yàlla haasihi bile dëkk baada mawtiha gannaaw ak deem fa amaatahu rey ko laahu yàlla miata aamin téeméeri at suma baasahu topp mu dekkal ko qaala wax ko yàlla nag ne léegi seetal kam labista ñaata nga sax fii qaala tontu usayru ne man day labistu sax naa ci nii yow man benn bés aw baada yawmin wala génn wàlli bés qaala wax yàlla ne bal déeréet lu fi nekk kay labista sax nga miata aamin téeméeri at fandur seetal nag ila taamika sa ñam wii wa sharaabika ak sa naan gii lam yatasanna soppeekuwul wandur seetal ila ximaariki ci sa mbaam mi boo ko xoolee nu dekkal ko wali najalaka dañu bëgg it def la yow yow ci sa bopp aayatan ngay kaw téef ndax ku sa doom mag ñeent fukkeet sa doom magee la ko nga dëgër sa doom màggat yow ci sa bopp yaay nekk kawtéef li naa si ñeel ni ñi wandur seetal nag ilal izaami ci yëqu mbaam mi kayfa nun shizuha naka lañ koy yëkkatee su ma nag suha ñu wodd ko laxman aw yàpp yàlla def loola falama tabayyana ba biree la ñel usayru dekkal gi aala mu wax ci làmmiñam ne ne aalamu léegi day xam naa xam-xam bu wér ne ana laa yàlla moom qadiru najaatan la ala kulli cheyin ci lépp la bàyyi na lool bu fekkee loolu nekk na kawtéef ci Uzayru itam mu ne am na beneen kawtéef bu ñëwoon ci yenteel Ibrahim xam nga Ibrahima alayhi salaatu wasalaam te loolu du Ibrahima rek dekkal ci boppam mooy problème mu gëm yàlla ak nit ñi looloo të boo dajalee jullit ñépp ñu gëm ne gëm nañu yàlla waaye boo indi woon kaamil ñi cay géñ ne dekki am na ñu néew lay doon kon dekki mooy problème mu jullit ñi te nag ku ko gëmul rek amoo amoo imaan bokk bokk goog Ibrahima ku mag la yàllaa ko yónni dafa toog ba yàlla ne ba yàgg mu ne yàlla damaa bëgg nga wan ma ni ngay dekkalee ku dee man daal jaaxal na ma yàlla ne ko ah Ibrahima ndekki gëma a goo yow sax mu ne ah kay waaye nag su ma ko gisee sama xel dal yàlla ne ko wutal ñeenti picc yoo xam ne bokkuñu mbir yoo xam ne miinuñu sax doomu aadama boo demee ci haashiya moom mooy jéem a indi turi picc yi yaakaar naa ak coono rek la ndax amul njëriñ ñu naan tawus ci la bokk jàmb ak nangam ak nangam waaye jël na daal ay ñet ñeenti picc mu rey leen suqi leen doget yàpp wa jaxase ko jaxase ko jaxase ko ba mu jaxasoo mu ne tibbal teg fale tibba teg fale tibba teg fale yàpp yépp nekk ñeenti saam nga toog fii nag woo leen koo ci woo rek fu nekk ab jóge fa daje dekki taxaw sa kanam Ibrahima def loola ba mu leen wooyee la yàlla waxoon dal di am Ibrahima yi dal di ne mayit kon xam naa ne yàlla ko am kàttan la ci lu ne gëm naa ne kon mën naa dekkal ku dee loolu yépp bu koy waxee Ibrahima di ko waxee Uzayru ñun rek lay wax comme li borom bayaan di wax naan iyaaka ani wasma iya jaarata ñun la bëgg ñu xam ne yàlla mën naa dekkal ku dee waaye nu gëm ko yi buur ne wa iz jàngatal ba wax Ibrahim ne rabbi yàlla arini wan ma kayfa yi naka ngay dundalee almawta way deeya qaala wax yàlla ne ah awalam tuumin mu ndax gëmoo ba tey ndeke qaala mu ne ko bala aha kay walakin wante li ma inna ngir dal rek qalbi sama xol qaala wax yàlla nekkoon nag fa xus jàppal arbaatan ñeent min a tayri ci picc yi fa surhunna su ko defee nga tàppaleen nga indi leen ilayka jëm ci yow mooy nga rey leen boole yàpp wi su may jaal defal nag ala kulli jabalin bépp ak montagne boo fi séen minhunna ci ñeenti montagne yi nga def fa gisoon ab xaaj ci yàpp wi su ma doxu na nga toog sa béréb woo leen nga gis euh, picc mu nekk yaati nekk ñu dikkal la saa yan te ñu ngay dox ak seen i tànk ba mu ko defee ibrahima ne waala mu xam naa ne kon anna la yàlla moom azizun ku not ci kattan la waaye xakimun ku xarala la itam ci njëfteef génn na ci yooye mbir léegi ma ngi ñëw ci dundalee joxe alal ci yoo ci yàlla mu ne joxe alal ci yàlla dafa ajo ay teggin teggin ya moo di ne na éy na jarafet ma yàlla tax te ñaaxe bum ci am ñaax ñaxel suñ ko waxee ci wolof euh, bokkul ak ñaax nit di ko sant dara pour mu def ko waaye ñaxeel mu ngi mel ni fu setoon nga ñexel ko ba mu tilim mooy tilimal ak may mooy nga naa ko donte ko nag man ren nangam jot la du maa la sama nangam ja loola day tilimal ak joxe da koy yàq yooyu la yàlla di wax nag ne bu leen yàq seen joxe ca loola wala ngay jox nit te toraxal ko loolu moo tax ñi gëm yàlla suñuy joxe dañ koy faral di nëbb xam nga doomu aadama boo ko joxee ci ndeneen rek mu rus te soo ko nëbboon mooy gën a sell yàlla nag ne bu sellee mën nga joxe benn ma fay la ci fukk waaye éene ji mën na gën a sell ba benn bi ma fay la ci juróom-ñaar fukk mu mel ni dafa am ku nekk loolu day xaw ma noo koy defee mu ne nu ma koy defee jëlal benn pepp nga ji ko bu saxee benn benn gàttax gàttax bi mën na jebbi ba jebbi juróom-ñaari gàttax gàttax bu ci nekk focc ci wenn gub gub bu ci nekk def téeméeri pepp te benn la woon mu jël juróom-ñaari téeméer kon loolu kay ku ko mën a def mën ngaa liggéey benn yéene ja rafet ma fay la juróom-ñaari téeméer loolu lay wax ne masalul ladina misaalam ñi nga xam ne yunfiquuna ñi ngay dundalee amwaalahum seen alal fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne yéene ja na mu toll la pay ga di toll kamasali habbatin mu ngi mel ni aw pepp woo xam ne rek anbatat saxal na sabaa bila juróom-ñaari gub fi kulli sambulatin nekk na ci bépp gub miyaati habbatin téeméeri pepp loolu yéemu wut ndax wallaahu yàlla moom yu daaifu day fulande liman yashaaw ñeel ki ko neex ndax wallaahu yàlla waasiun aji yaatu la waaye alimun aji xam la mu ne alladina ñi nga xam ne nag dana danañu dundalee an waalowum seen alal في سبيل الله يكيونو يالا لن كي جوخي مي جوخي نجر يال ثم لا يتبعون تبو دنيو تفل ما انفقو لنيو دنلي من نن جن نيخل ولا ازن دو چاگن لور لو ميان لن اجروم سين يول عند ربهم فسين بروم ولا خوف دير اي رغل عليهم تي نيوم ولا هم دين نيوم يحزنون نيو تيت ومن دفا ام كنان كو موسى بروم كم لي عمر ابن الخطاب خون يننتي ba léegi rek euh, Omar amagul tontu Omar ne na woon yonent bi dahaba ali dusuuri bil ujur borom alal yi kat yóbbu nañ pay payu yàlla gi mu ne ko lu tax mu ne ah dañuy joxe te amuñ am ñun amul luñ joxe yonent bi ne ko wax ju baax sarax la njëkk nayu mbokkam julit sarax la ziyaare sa mbokkam julit sarax la dindi ak ak lor ci yoon sarax la Omar ne ko waaye loolu buñ ko defee ñoomit ñu def ko ñu am luñ joxe te amuñ luñ joxe ba léegi kenn tontuwul Omar loolu yàlla di wax naan qawlun wax nag maarufun ju baax wa maxfiratun ak njëggal ci ku la tooñ xayrun moo gën sax min sadaqatin ci sarax boo xam ne yetbauha da nga caa tofal azan ak lor waaye kayfa boo saraxee tofaloo cëg lor xam nga ne kon mooy gën qawlun maaruf wallaahu yàlla ganiyun yàlla nag aji ji jàllamu xalimun aji lewet la lu tax mu ne yàlla ganiyun ndax bu yàlla nekkutoon gani day mel ni joxe gim naan joxe leen dafa am lu ko cay jëriñ dara te bu kenn joxewutoon dara ngir yàlla yàlla nekk yàlla kon ndax yàlla moom ganiyun da ko soxlawul sax yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran la tubtulu bu leen yàq sadaqaatikum seeni sarax bil mani su gen ko defé yalla ngi lepp kuy joxé di ca tek ay la ki lor sa joxé ga na muy mel mune mo ngi melni ak joxé la ci kaw waye ak ñak la ci suuf ndax ñak nga la ji fi te duñ la ko fay mune lola mo ngi melni doj doj wu tax bu melni doj wi ñuy timé ñu sànni ko ci bitti ndox tooyal doj wa walbati ko ci suuf sa beeñ taq ca kaw daf lay wóor ne beeñ bi taq ci ndox beeñ bi taq ci xeer wur a tax woow daf lay wóor ne bu ndox ñëwatee rek suuf sa wadd loolu lay léeb ne kiy joxe te joxewul ngir yàlla mu ngi mel ni ki xeer wur a tax woowu nga xam ne dafa tooy rek beeñ taq ca kaw mu ne bu xeer wa caakaayoo ne moom am na suuf su am na lu ko taq mu ne day nax boppam rek ndax bu ndox ñëwee loola dem loolu mooy kuy joxe ti jubluwoo ci yàlla bés a pay bi ñëwee doo am loolu lay lépp mu ne ki nga xam ne yunfiqu day dundale maalawu alalam ria annaasi ngir njistal ak nit ña te fekk ba mu koy joxe sax wala yuminu gëmut billaay ci yàlla wal yawmeeg bés al bu daay ji mujj lu tax yàlla wax loolu bu fekkee njistalu bëgg nit ñi gis koo tax yàlla du ko nangu waaye bu fekkee ne sa eey na duwul gis ko yàlla dafa dogal nag fa koy joxe fokk nit gis ko rek koy mu baax moo tax mu teg ci ne ria annaasi wala yuminu billahi waaye bu fekkee ne nit ñi gis nañ ko waaye yow tuminu billahi wal yawmil axir kon dafay baax waaye ki nga xam ne amul imaan ri ria rek la ci jublu fa masaluhu misaalam kooku daal ka masali safwaanin ma ngi mel ni ki aw doj wu tëx alayhi wu nekk ci mu kawam turaabun suuf soo xam ne ndoxa ko ca taqal fa asaabuhu jot ko waabilun aw waame fa tarakahu mu bàyyi ko saldan mu ne dandang laa yaqdiruuna duñu àttan ala cheyin ci dara mi ma kasaboo ci lu ñu fab wallaahu yàlla yaa di du jubal alqawma nit ñi alkaafiri nit ñi di way weddi loolu la doon bëgg lépp mu ne am na benn léeb bu tolloog bi mu doon wax ndax bee dafa léeb ci ki joxe te jubluwut yàlla kon nag war na la léebal euh, koo xam ne dafa dafa joxe ngir yàlla te war na koo dendale ak ki joxe ngir seytaane ki joxe ngir bakkanam ak seytaane ak ki joxe ngir yàlla ñoom ñaar la bëgg a dendale pour nga xàmmi leen ba xam nu muy mel mu ne ki nga xam ne tax muy joxe la muy joxe mu ne ko ak kooku ak payam bokk i seet day mel ni benn tool bu ñu tos mu nekk ci tundawa muy taw guddeeg bëccëg waame ya di ca wuutu wante te kat yaa nga fa daan bay di fa am téeméeri barigo waaye ren ndox mu bari maag tos ga ren da nga ci am ñaari téeméeri barigo ndax rafetuk éena ja mu ne ki joxe ngir yàlla noo noonu la mbiram may gën bare nim daan tollu su fekkee ne sax du fu duur dafa taw ba waame it yàlla taw na fa taw boo xam ne tax na mu meññ rek mu ne loola dana wuuteeg ki jubluwut yàlla xanaa jublu seytaane te itam ku joxe ngir seytaane ak bakkan ak àddina loola muy def dafa xamut li muy tekki waaye kon du ko bëgg ndax su ko xamoon loola kenn du ko mide lu tax mu ne loolu ndax loolu dafa mel ni nit koo xam ne danga am am ab tàndarma ak ay raisin yu ca nekk am xur wuy daw ci digg ba ngay tànq di roose meññet bu nekk nekk ca mu dem ba meññ dara desul lu may góob ko yàlla dogal nekk da nga màggat te feebar munoo jóg doom yi nga am itam kenn mënul dem tool ngir ak tuuti léegi ñuy waaj di seet nan lañ koy góobee far nag ca la weer dal di fa dikk bu ànd ak safara dal di ko taal loolu mooy alal ji bari na joxe nga ko te yàlla taxut mu ne di dem waaye dañuy dem ba bés si pay rek day mel ni dañ ko taal mu dal di naaw kenn du la fay mu ne kii ak kii nii la melante loolu lay wax ne masalul ladina misaalam ñi nga xam ne yunfiquuna ñu ngi dundale am wàllum seen alal ibtigaa mardatillahi ngir sàkku ngërëmal yàlla wa tasbitan ak sàkku ñu saxal leen ci imaan min anfusihim seen bopp kamasali jannatin mu ngi mel ni tool bi rabawatin ciw tund asaaba jot ko waabilun waame fa atan mu meñña ba joxe uklaa meññatam ma biir fay ni ñaari fulande waaye lam yusibha bu ko jot waabilun waame it fa tallun bandent mooy taw bu ndaw wallahu yàlla basru naa ji xam ne bi ma taamaluun ca la dinañu def aya waddu ndax yaakaar nga ne dana mébét moos ahadukum kenn ci yéen attakoona di nekk la wañeel ko janatun tool mi naxilin ci tàndarma wa anabin ak raisin tajri di daw min taxtiha ci suufam alanhaaru ay yolnde la wañeel na ko fiyaa ca tool ba min kuli samaraati bépp meññet fa asaaboo jot ko alkibaroog màggat wala wañeel na ko zuriyatun ay doom duafa yu màggagut fa asaaba jot tool ba isaarun ca laweer fii nekk na ci naarun safara faxtaraqat mu lakk ndax am na ko ko bëgg kon nag dundale ngir seytaane ak bakkan nii la mel kee nee la mel kazalika yu yubayinu laaw lay birale yàlla lakum ñeen leen al ayaati al quran laallakum boo yéen te tafakkaru na ngeen di xalaat ci ñaari dundale yooyu la léegi nag mu ngi ñëw di di wax ci xeetu lii ñuy dundale ñetti ngir yëpp shafii ahmed xanafi ñoom ci aaye ji ci lañu dëgg ba wax ne lépp lu ñu bay bu ñoree ñu di ko lekk nay jaxatu nay kaani nay batañ nay ñambi dañ koy génne asak almazhabul maliki yi du malik ak boppam waaye ulama yi ci mazhabul maliki yi ñoom ñu charte ci azaka na nekk loo xam ne dana nangoo wow te ñu di ko denc ñoom ñu daldi dàq xeeti légumes yooyu yëpp ne duñ ko génne azaka ndax kenn du ko mën a denc waaye ñoom it gis nga léegi seen lay wa yàqu na ndax léegi lépp la ñuy denc comme jën sax dañ ko mën a denc far léegi kon ma ngi mel loolu yàqooti na kon nag ku yeb woon yem ci aaya bi rek lu ñu bàyyi mu ñor ñu koy lekk rek mënees ca génne azaka doonte kaani la borom bi tabaraka taala lu tax aaya bi wàcc fasturoni dañoo wax ne xeeti tàndarma tàndarma am nañ lu war a mat ñaar fukki xeet mu ngi mel ni xeeti ñebbe yi wala moo ko ëpp sax ak xëy na xeeti ñebbe yi yi nuy bay ñun matul ñaar fukk xanaa nga boole ci ñebbe tubaab yi tàndarma fi gën a bari xeet daal am na nag tàndarma bu ñu tuddee alxachaf xachaf moo ci gën a féete suuf léegi nag buñ daan wax nañ génnee sarax te looloo doon seen alal gaa yi da ci am ñoo xam ne suñu duggee seen néeg ah xandi gi nga xam ne nag ci la xasaf ba nekk ci lañuy ñuy tibb ñëw joxe sarax waaye bii def sukkariya ba ah yeneen xeet yi nga xam ne ñoo baax kenn du ko indi nee nañ loolu moo doon sababu solu aaya bi wante lu duhul loolu itam dafa bëgg a wan nit ki rekk ne sooy joxee na nga joxee li nga xam ne ba tey yaa ngi yaa ko soxla xam nga yàlla itam li kenn soxlawut wut bëgg ko selmaxa bi yelwaan da ngay dégg mu ne yàlla xeebut yéemut anaam ah, xeeb na yéem na ki am lu bari tey joxe la tuuti xeeb kooku xeeb nañ ko waaye ku am lu tuuti te di ca joxe it kooku yéem nañ ko kon yàlla xeeb na yéem na kon daal li am solo mooy del joxe li nga soxla kon lay am njëriñ moo tax buur bi ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran anfiqu dundale leen min tayibaati ma ci way teey la nga xam ne kasabtum fàggu ngeen ka li ngeen fàggu te mu teey mooy mu dagal bu cosaan la baaxut dajale alal ju bari te fi nga ko jëlee baaxut boo tabaxee jàkki ak nit yëpp it defagoo dara ndax mu ngi mel ni fu sobe ñëw nga jël ndox moo xam ne sanguwaay la di ko raxasee daanaka doo def dara tusidu tiina bal la ban la woon nga tooyalaat ko rek kon nag na ngeen di dundale min baati ma kasabtu loolu mooy sadaqatu tatawwu léegi nag yeneen mazahib yi ne wa mimma ak ci li nga xam ne axraj naa génneel nañ leen lakkum ñeen leen ko minal ardi ci suuf liñ leen génneel ci suuf it na ngeen cay joxe ñu ne mooy azaka ci lépp lu ñu bay mu ñor ñu di ko lekk olamaawul malik ñi nga xam ne dañuy weddi ne du lépp lu ñuy génne azaka ñu ngi layee ne min mi tabaid la ñu ne mim maa la yàlla wax ci leen na kon du lépp wax nañ dëgg ci leen na waaye it ñu delloo leen ne ci leen na googa mooy asaka ju du lépp ngay joxe dara ci alal ji la kon loolooy mimma bi waaye duwut ne lii ñu kii ko lii duñ ko bi buur ne wala tayamamu moo bu leen bu leen jublu wala tayamamu bu leen jublu alxabisa bon la min wu ca joxe ba tunfiquuna yéen a nga koy dundale wala sumte bu ngeen ko joxe wutoon it déet bi aaxizihi ngeen di way jël loola illa an tuxmidu fii lu may ngeen gëmmal ci seen i bët soxlaatoo ko boo koy jox sax da ngay gëmma ndax lii moom bu ko waa kii jëluti du du kii xam leen ni ana laa yàlla moom bu leen waxee na ngeen joxe li ngeen bëgg it moom soxlawu ko daal barhamu baun waraun